président ñu ngi leen doon xaar parce que vous avez fait une bonne campagne vous êtes adressé aux Sénégalais vous avez aussi un bon profil mais on a été surpris vraiment d'apprendre que Guédiawaye même bureau yu bëri bëri da ngeen da ngeen koo ñàkk donc qu'est-ce qui s'est passé lii noo ko expliquer waaw merci Mamadou Awa di revenir rek euh, si li nga xam ne moo moo xew tey euh, di amaat mbégte si expression de vitalité démocratique bi nga xam ne Sénégalais yi dañ koo wane euh, tudd nga sama leader El Hadj Malick Gakou ma koy nuyu di ko remercier au passage. Mhm. Euh, di ko encourager di encourager toute la coalition Gakou Euh, y compris ñi nga xam ne ñoo nekkoon mag ñi sages yi femmes yi jeunes yi euh, les cadres euh, le directeur de campagne Ahmed Aïdara et tout le monde ñëpp investir nañ li ñu waroon a investir et je pense que loolu moo nekkoon li nga xam ne moom lañ ñu santoon pour ñu def ko c'est-à-dire que wàcc jël suñu programme wax a Séné wax ak sénégalais yi. Mmh. et effectivement aujourd'hui résultats yi nuñ koy nuñ koy gisee nii on n'ose pas dire carrément que d'une manière extrêmement nette. Euh, pour ne pas prendre le rôle de ñi nga xam ne ñoom lañ koo sant ñu war mm-hmm. koo def euh, l'élection est pliée mais li nga xam ne moom la ñuy gis nii euh, aujourd'hui di ko dégg boobu léegi ci ngoon aussi di ko observer ba nga xam ne jaral na Sénégalais yi ñu génn di jubilé dafa nekk loo xam ni tey c'est comme si une victoire qui se dessine au premier tour mm-hmm. et je pense que loolu noonu déjà il faut s'en féliciter liggéey la boo xam ne aussi tamit coalition bi nga xam ne mooy Diomaye 2024 bi ak ñi ko àndal yëpp liggéey nañ ko revenir si li nga wax si gàpp ak Guédiawaye il faut dire que en réalité c'est comme si c'était tout un processus benn film la woon épisode boo xam ne on vient de l'acte final mhm. il faut remonter très loin il faut remonter depuis les élections locales avec la coalition Yewwi Askan Wi pourquoi ma wax Yewwi Askan Wi da xool fan la jógee processus bi bi élection yi génnee maire yi génn ñu bëri gis ni les grandes villes en réalité coalition Yewwi Askan ni ñu investiroon dañ ko dañ koo gagné. Mhm. avec l' appui fort du président <coughs> Ousmane Sonko qu'on le dise qu'on le dise pas qu'on le veuille qu'on le veuille pas. ñu dem ba si biir après ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo muy waa Benno Bokk Yaakaar minimiser résultat yi jàpp ni. bu ñu defee le cumul li ñu am si nombre de mm. communes au niveau du Sénégal moo dépassé largement le coalition Yewwi Askan Wi am mais c' était une percée et loolu c' dafa nekk signe annonciatif boo xam ni mm, war nañ ko xam ñu bàyyi noonu élection législative yi ñëw ñoom ñu jógee si cent quarante députés wàcc si quatre vingt trois benn signe encore mais dañ ko minimiser mm-hmm. jàpp ni y' une majorité boo xam ne dafa am déjà avec yenn liste député boo xam ni ñëpp dañ leen a génnee presque ñoom Sonko gàkku ay ay Aïda Mbodj ak ainsi de suite ñu nekkoon ci liste boobu ñu annulé liste boobu mais apport bi nga xam ne Yewwi Askan Wi et principalement Ousmane Sonko daf ko appuyé sur beaucoup de ñu ñëwaat ñu gagné encore c'était encore un message mm. boo xam ne les Sénégalais avaient montré le vent de changement depuis mais ils n'ont pas encore mm-hmm. décrypté le message boobu noonu toujours minimisé ñu ñëw élection présidentielle ñëw Yewwi Askan Wi demee benn façon signé charge chaque leader mm-hmm. dañu dem bu fekkee ne au cas où deuxième tour am ñoom ñu ñëw jàppale ki génn deuxième tour su ma juumul loolu la charte bi signé woon mhm. donc donc damay jàpp ni euh, en manière en terme macro damay féliciter la coalition d'abord bu yeewee askan wi ba pare revenir aussi pour féliciter coalition bu bu jomaay bi mais sauf que l'élection euh, s'est exprimée aujourd'hui en, qualité de vote ak urne mais il va falloir que bu fekkee ni amoon nga tuuti yëg-yëg rek da ngay xool qu'est-ce qui s'est bi ñu libéré Ousmane Sonko ak Diomaye mhm. lan nga gisee mbedd mi lan nga gisee Sénégal lan nga xool rek mu war la jox si ci en terme de vote lan lay nuróol donc nga xam ni kon amoon na luy dessiné wu même si en réalité on disait que on pensait que et moi-même y compris personnellement mmh. que même bu élection di am même gagné buy am deuxième tour peut-être lay xewee et je pense que bëri woon naa si donc jàpp laa jàppoon mais loolu laa jàppoon mais li ma gis di ko dégg te ñëpp di ko gisandoo di ko dégg avec le cumul des points des centres de vote les régions centres sur les régions de Dakar bi jël Thiès jël Mbour jël Kaolack nga dem Diourbel nga dem Touba nga dem Saint-Louis waaw nga dem Ziguinchor nga dem ay Kolda ay Sédhiou mais qu'est-ce en fait qu'est-ce qui reste pour ne pas mi mi singer euh, maître El Hadj Diouf ñu mhm. doon wax te fat jël fépp mais bi qu'est-ce qui reste mhm. Mhm. xam nga loolu noonu bu amee tey balotaan duñ ko fi wax ba pare c'est pas les résultats du Nord fi ñu yaakaar moo mun a renverser la courbe on n'est pas Euh, waaw sans compter la diaspora donc mënuñu def ay prédilection mais quand même rationnel réflexion bu rationnelle mhm. loolu lay wane donc loolu bu amee bu mu bett du sénégalais yu jubilé revenant nag ci Elhadji Malick Gakou moi je pense que le challenge c'était de participer à ces élections déjà 2019 on a été retenu mhm. si ay parrainage mu metti woon vivre ko dignement mais vivre ko difficilement tey ñu ñëwaat parrainage yi am déjà mu ñëw ak ni nga xam ne liggéeyee na si ñu collaborer ak moom yëpp xam nañ conviction bu muy demee ak bëgg Sénégal bi nga xam ne bëgg na ko ak li nga xam ne jàpp na ni Sénégal moo ko permettre mu nekk daa dem si Sénégalais yi Guédiawaye nekk sa base mm-hmm. naturel boo xam ni fa fekk baax fa la yàgg de liggéey euh, Ahmed Aïdara mi nekk maire mu nekkoon allié si biir Yewwi Askan aujourd'hui il s'est exprimé euh, par rapport ak sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk de la à la base surtout Guédiawaye mais il a une, une réponse défavorable par rapport à coalition défavorable dans le sens où en réalité les tendances ont montré que il y a une forte Euh, euh, demande et d'expression de besoin ci nit ñi li ñu am ci coalition bu Jomaay bi mhm. loolu nag je pense que lu ma ci mën a tirer rek c'est dire que il faut simplement euh, que li sénégal yi décider ñu bëgg a respecter et cela montre aussi que gis nga parfois dañuy def ay euh, calcul yoo xam ni peut-être la professeur Maurice mën nañu ci gën a dimbali mhm. mais des dañuy xaw a ñeme yàlla ñeme yàlla gi mooy Bassirou gañewul njagañaaw ku gañewul mairie nan ngay gañee ay présidentielles dañ koy dégg ci ay argument ainsi de suite. pourtant l'opposition disait la même chose mais mais mais dama leen mais ñu rappeler ni Macron dafa perdoon les élections mairem mhm. gagné élection présidentielle. bii dafa gagné njagañaaw. Mhm. donc sénégalais yi nga mënta natt. Mhm. météo politique boo koy def da def attention ak sénégalais yi. parce que sénégalais yi la plupart des temps dañu attentiste dañuy toog dañuy déglu dañuy xaar. te aujourd'hui ils ont simplement exprimé un vent de changement qui n'est pas en réalité spécifique à Guédiawaye mais dañu perdre seen localité perdre seen bureau de vote donc ce n'est pas spécifique ni à Gakou ni à Khalifa ni expression bu pure wala keneen en réalité c'est le Sénégalais dans la grande majorité ñoo jox l'aval à la coalition Diomaye Président pour ce vent de changement bi ñu ñu jàpp ne ñoom mën nañ koo conduire donc sur ce ñun du ñu def lu dul être démocrate être républicain saluer la maturité des Sénégalais mais surtout aussi saisir la communication et sénégalais yi ne la ok nous vous accordons nous vous donnons crédit par rapport à l'exécution de ce projet donc il y a un une relation de confiance boo xam ni dafay jurgu si tenté que confirmer nañ résultat yi dafay juddu entre ñi nga xam ne ñoo war a ji tey dëkk bi ak ñi nga xam ne tey moo nekk les sénégalais parce que ce n'est pas une victoire de si ceux qui ont voté pour la coalition Diomaye mais après bu jàllee en réalité c'est l'affaire de la coalition ñi war a